laaj bu njëkk bi dafa wax ne udduuni astajib lakum sun borom moo ko wax ci alquran ñaan leen ma ma may leen ku tabe ba naan ñaan leen ma de sun borom rek azza wa ndax li mu amee du jeex te tabeem yéemwul fenn àdduna ak alaxira ak tabeem xaju ci udduuni astajib ñaan leen ma may leen ñaan nag dafa am ay charte yoo xam ne bu charte yi dajee rek ñaan gi nangu na nga yëg ko ak nga yëg ko nga ñàkk koo yëg nga gis la nga doon ñaan ak nga ñàkk koo gis lépp ñaan gi nangu na charte yi mooy lan nit kii ñaan lu lewul bu mu nekk ci biiram lu araam bu mu nekk ci biiram fekk bu mu fekk ne biiram sàngaraa nga ci ba noppi muy ñaan wala lu lewul ba noppi muy ñaan duñ ko nangul li mu sol bu fekkee ne lewu ko li mu ñaan du nangu bërëb bi mu toog bu fekkee ne sañu cee toog bërëbu jàmbur la boo xam ne neexul borom bu ñaanee duñ ko nangu fekkee nag yooyu mucc na ci mu jublu penku tàllal suñu boroom azza wa ay loxoom suñu boroom dana nangu ñaan bokk nag ci teggi ni ñaan bul ñaan lu paase ba noppi démb weeru weer yu feeñul woon ngay ñaan weer yu feeñoon démb te nga di ko ñaan tey lu mustahil la bu fekkent ne li nga sol ak li nga lekk ak fi nga toog lépp lu laab la nga jublu penku talal sun borom selal nga tewlu sun borom dana nangu ñaan nangu ñaan bari dañuy ñaan ba nopi ñaan gi nangu ñu ne ñaan gi nanguul te lolu tere nañ ko waxtani nako batay da ngay ñaan sun borom nangu ñaan gi ba nopi xamne nak lolu bu ñewé du la ndax am na lu lay bëgg dal te lolu bu la dalé li nga doon ñaan boko amé du dara mu fankal la loola weccee ko li nga doon ñaan boo defee gisagoo li nga doon ñaan nga ne ñaan gi nangul wala nga bàyyi bañatee ñaan ñu xañ la lu bari ndax feeg yaa ngi continuer ñaan moom boo ñaanee boo gisul li nga ñaan continuer di ñaan rek loolu lañu bëgg ndax waxtu woo ñaan rek may nañ la dañ lay may di la may di naroon a tax doo mën a jëriñoo li ngay ñaan ba nga xam ne rek li ngay ñaan nag ñu jox la ko bu dikkee jëriñ la te moo gën ci yow ñu soog la koy jox waaye feeg yaa ngi ñaan rek ñu ngi la koy may waaye bu ñu la ko mayee rek gis lu tax gis lu ko gën ci yow ñu watte ko loola ñu defal la loola kon ñaan am na ay nit ñi ñuy nangu seen ñaan ak bërëb yoo xam ne dañ fay nangu ñaan ak jamono yoo xam ne dañ fay nangu ñaan nit ñi ñuy nangu seen ñaan doom joo xam ne ay waajuram gërëm nañ ko dañuy nangu ñaanam ku am ngërëmal yàlla wala mu am ngërëmal wàll yi dañuy nangu ñaanam ku ñu tooñ dañuy nangu ñaanam aji tumuraanke yoo xam ne mu ngi ci réew mu mu dëkkul jaaxle dañuy nangu ñaanam aji woor dañuy nangu ñaanam ñooñu dañuy nangu seen ñaan nit koo xam ne itam borom cër yi sàmm ak lamiñ wu sàmm itam dañuy nangu ñaanam bërëb yi ñuy nangoo ñaan ak jamono yi ñuy nangoo ñaan béréb yi bàmmeel yi yonent yi wala wàllu yi wala gaañu baax ñi dañ fay nangu ñaan naka noonu béréb boo xam ne bii dañ fay jàng alquran buñ jàngee alquran ba ki xam ne day def waqafam ba àggale diggante nangu ñaan la rawati na nag boo xam ne dafa wàcce ba jeexal tey kaamil bi mu ñaan naka noonu ci biir alquran ci biir aaya yi am na diggante yoo xam ne dañ fay nangu ñaan wa ida jaatum ayatun qaalu lan nu'mina hatta nuuta misla ma utiya rusulullahi diggante boobu bala ngaa wax allahu alam haysu yaj'alu risalaati yi diggante boobu loo fi ñaan mu nangu ci woor bay dog nga xam ne itam diggante ki nodd fi mu tolloo ci hayya ala salaa ak hayya ala salaa ba ci hayya ala falaa hayya fi ñaan day nangu boom daf fi nangu ñaan naka noonu itam ki nga xam ne dafa woor ba ngoon jot moom itam mu ñaan dañ koy nangu béréb bu ñuy nangoo béréb bu ñuy nangoo ñaan la naka noonu booy naan ndoxum sam-sam bi nga koy bi nga ko tiimee di war a naan nga ñaan diggante boobu itam dañ ciy nangu ñaan di ndox bay sóob waxtu woowu ñaan ñaanee suñu borom dana ko nangu naka noonu jullit sa mbokk jullit moo xam ne nekku fi nga toog saxal dem ci moom nga ñaanal ko dañuy nangu ñaan nga itam kon uduuni astajib waxi sun borom la ñaan leen moo may leen ku ñaan sun borom rek dana la may sart yooyu nag mooy teggi ni ñaan mooy tax ñu nangu ñaan ko ne ci teggi ni ñaan nga jublu penku tàllal sa ñaari loxo boo àggalee nga li sa ñaari loxo raay ci sa kanam loolu bokk na ci teggi ni ñaan ak bi ngay ñaan nga jublu penku yooyu bokk na ci teggi ni ñaan ñaareel bu mu ne woon بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر